moom la Macky di gouverner noonee moo ko neexul ndax dafay jël lépp daal di koy ngar daajo nekk alpha nekk oméga di bum di bumi moom Moustapha Diakhaté ñu laaj ko na ko ndax jàpp nga ne di nga dem ànd ji ak Macky Sall nee na adada loole du am ba tey wax na ne lu bare bare bari ci ni nga xam ne moom la ñu yore coronavirus bi d'accord ci rawatina ci lu jëm ci wàllum ñetteelu vague bi nee na jamono ji pass sanitaire munta am ci Sénégal la ko waral mooy amuñu ay ñekk yu doy moom Diakhaté nee na événement yi àndu ci benn yoon ak fi nga xam xam ne fi la coronavirus bi toll yéen a kaay gi di l'observateur ne en tout cas li am ba de sall mooy bërëb yi nga xam ne moom la ñuy fajee coronavirus fees na dell dell dell ba ñu baree bari amutuñu place journal bi xëy di ñu nettali mbir mu garaawa garaawa nee na am na benn xale bu jigéen boo xam ne dafa amee coronavirus waaye nag dafa ëmb ba diis xale bu jigéen boppi ceeb ambulance la ñu ko dugal minuit ba midi maanaam minuit ba midi xale bu jigéen bi ma ngi ci ambulance bi ñu koy wërale ay bërëbu fajukaay coronavirus amul fenn fenn fenn foo xam ne maanaam mën nañu ko faa dugal te nag li nga xam ne moo ci garaaw kooku nga xamante ni jigéen la ba pare wannu loru kaa grave la yéen kaay gi ñu fekk fa ciir na loo moom nag nee na benn yoon ñu tere li nga xam ne mooy événement religieux yi nee na tamit la ñu tëj li nga xam ne mooy jumaa yi ak jàkka yi ndax nee na coronavirus la mbiri yàlla sunu borom la yoo xam ne dañoo war a ñaan ngir mu daal di fiy jugee te nag ñaaw téef yu bari yi nga xam ne moo am ci àdduna bi lii rek war naa tax yàlla suñu borom jël ay daan nag lal ko suñu ndodd yéen kaay gi di laas xëy dañu xibaar naan ñu ñetti fan ne coronavirus bi maanaam nag ma ngi wàññeeko yéen a kaay gi di la Soleil ak réew mi quotidien nee na lu toll ci cent quarante mille ci ay vaccin AstraZeneca yoo xam ne maanaam andi nañ ko ci réew mi yéen a kaay gi di réew mi quotidien le quotidien xëy duñu xibaar naan ñu njiit réew mi di président Macky Sall demoon na ca Cambérène ak ca ngir nag amal fa xam ne maanaam mooy ak njàlla yéen a kaay gi di L'As Macky Sall moom nag na ay promesse nee na dina soutenir a xalif général bu laayeen yi ba pare moom njiit réew mi nee na dina jël lu toll ci huit nga xam ne maanaam mooy Thiénaba yéenekaay gi di Le Quotidien gis na leneen nag gis na leneen ci Macky Sall mi nga xamante ni moo demoon Cambérène ak Thiénaba la xam ne nag moom la ci journaliste yu bari gisal mooy Amadou mi nga xam ne moo gunge woon Macky Sall journal bi nee na am na lenn nag ci wàllum politique boo xamante ni rax na sa am nay lee suxul de ndax Macky Sall ci boppam digganteem ak Amadou Ba neexutu na waaye nag jamono ji komburoog soowa en tout cas Macky Sall mi nga xam ne jël na Amadou Ba teg ko si wetam daal ñu ànd na xam ngeen ne Macky Sall dàqee maanaam Abdoulaye Diouf Sarr maanaam moo fi nekkoon daal di lëmbe daal Abdoulaye Diouf Sarr di lëmbe loola yéene kaay gi ne na mi nga xam ne yóbbu nañu ko ci kër kilifa dini mbaadu nag Macky Sall da ko faa bëgg a samp lii ko du cee nee na le retour de Amadou gi di réew mi ko du cee ak les échos ak las xëy ci accident yu métti yi nga xam ne maanaam moo am ci réew mi journal bi nee na démb ca Kaolack am na fa accident bu métti métti ab camion boo xam ne moo jaar ci kawub taxi am ñeent ñoo xam ne ñàkk nañu ca seen bakkana yéene kaay gi nee ñett ña ay góor la lañu kenn ki jigéen la kenn ki sax ab chrétien boo xam ne dafa demoon église bay tourné démb ci 15 août bi yéene kaay gi ne na askan wi nga xam ne nag ñooy yeewoo kaw la ka mer ba futo bëri na ay camion malien xam ne ni ki démb la ñu koo sax li nga xam ne mooy route nationale bi askan wa ñoo meroon lool lool waaye nag ñi nga xam ne tamit ñooy yeewoo Mali ñoom nag dañoo mer ñoom tim daal di fayu riposte ci gox bii nga xam ne mooy dibool yi journal bi ne ne camion sénégalais yi tamit ca diwaanu Mali malien yi dañ koo sax-sax ba maara détaillé ministre bi ñu dénk wàllum transport jamono ji ji nag ma ngi woote ak dalla nee na en tout cas justice dina def liggéeyam Dembélé mi nga xamante ni mooy ministre transport bu Mali moom tim nee na nag jokkoo na ak waa Sénégal ministre transport Mali nee na jokkoo na ak waa Sénégal te li nga xam ne maanaam mooy accident yu métti yu doy waar yi dalla danañu ko lijjanti ndax na ñaari réew yi nga xamante ni mooy Mali ak Sénégal am na loo xam ne maanaam wuru fee xew yéen kaay gii di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu ci diwaanu Haïti foofee nag suuf sa na am na lu toll si ñetti téeméer ak ñeent ñoo xam ne ñàkk nañu si seen bakkan am na lu toll si junne ak juróom-ñetti téeméer ñoo xam ne am nañu sa ay gaañu-gaañu ba léegi ni am na ñoo xam ne kenn gisule na maanaam dañoo disparaître yéene kaay gi de l'Observateur Vox Populi Sud Quotidien Rewmi Quotidien nee na askanu Sénégal jamono ji tëmbaat nañ ci ndox mi ginnaaw taw yi inondation yaa ngi mel ni tulleeg male rawatina fi nga xam ne mooy Kër Massar askan wa nga xam na ñoo fa yeewoo jamono ji nag sonn nañ ba maara de taali yéene kaay gi ne na muy buun di yëmbal di benn baraka di mbaawa journal bi nee na Rufisque tamit foofee bëri nay quartier yoo faa dem l'Observateur ak Sud Quotidien nee Kër Ñang ak Ndaamaatu foofee tamit askan wa ñëw nga tëmb ca ndox ma yéene gi di Sud Quotidien nee na en plan d'urgence de lutte contre les inondations la ñu baraamu tuuma ndax na kuréel gi ay milliards yi milliards yi milliards lañ sa dugal te ba léegi ni amul yenn résultat yoo xamante ni gis nañu ko yéene gi dee sat xëy di ñu xibaar naan ñu Premier bu njëkk bi Manchester City mi nga xam ne moo jëloon championnat